ay jamono ñu ngi dégg ci mbokk moom ñuy wax Omar Sall kàddu yi muy yëkkati di ko jëmale ci suñu ay kilifa diine di ko jëmale tamit ci suñu pas-pas te bu doon ay kàddu yoo xam ne kaddu xam-xam la ñu mën ko tontu ci xam-xam ñu ne bu nu jógee dal ci kawam danañ ñu ay yàdd wala mën nañ yee fitna ci réew mi waaye nag gannaaw réew dë réew yoon la ñu nekk nañ jël mbir mi jébbal ko yoon waaye waxtaan nañ fi ak yenn kuréel yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu diine ñu toog ñu waxtaan ngir jéem a seet nan lañuy ñuy defee trouver benn solution waaye ba loolu amee ca lendemain ba ñu dégg kilifa ki nga xam ne mooy kilifa Omar euh, Omar Sall ñu koy wax euh, Ahmed Lo ne bu dee li tax ñoo jàpp Omar Sall comme doog nañu pare na xam ni junni euh, plainte dana am nañu wut encadre bu bari kon donc ñooñu wutuñu jàmm wutuñu salaam